saa ji daal amul maas nag rek ah. Eh, dimbali ma kat bu ne ma saa waay fii amoo fi waay da ñoo xeeb ñu xeeb leen saa de day lu yenn ci moom lu ne fanaan ci man wax na ma lépp neena na suur na la këll. ah, ah oui. dañ laa yónni wala say waxi bopp ngay wax. yeey xam nga ne man géwal la dañ may déey may jottali dan ma wax ma jottali ko lii kese la ñun ay gor lañu ku nu cof ku ne ñu rot. Hmm. baax na waaye ndiit ngaan baax bu dee noonu nga ko gisee li nga xam ne man lamb ma. waaye dimbali ma ngaan lamboo doom may sama jàmm ndiip laa la wax ngay mel ni poudre bébé nii mbas. waa tey moom yaa ngi taaru la ay directeur bul waxee noonu sinon damay am gàcce damay rus mais avant tout xamuloo bëgg dama bëgg tey nga jël waxu directeur bi teg ko ne de parce que ce n'est pas le directeur qui parle mooy waxtaan ak yow ah dëgg la nag ah danga doon yi nga tas mm. loolu def naa ñëpp xam nañ ko mais loolu la yàlla dogal mm-hmm. man tamit boo xoolee idée sëy naa tas naa mais boobu ba léegi amaatuma jabar mm-hmm. ndax gisuma woon jigéen bi nga xam ne wóolu naa ko mm-hmm. mais vraiment ak yow Penda franchement j'ai confiance en toi mm. waaw te defe naa xam nga bu baax ah mm-hmm. doxuma si caaxaan bu fekkee bëgg nga nag laa wax man dama lay takk boo bëggul nag tey laa lay mujj wax yu mel nii <laughs> monsieur Sagna bu fekkee jabar rek nga bëgg incha allah boo yónnee dinañ la may soxna. loolu moom tey neex naa dégg. macha allah xam naa moom tey sama journée moom dina gën a neex. ca bokk kon Madou sama plat préféré nga ma xam nga ni loolu def. Hmm. ci yooyu laay dox. ci li daal neex. Hmm. neex na est-ce que. Ah. ba pare. Hmm. Mm-hmm. xam nga ni duma def lu naxari mais comme danga may laaj neex na. tiyel. daanoo ko def moom ñu xool rek. mel ni neexati na de. kañ nga daan njëkkat seexal sa bopp. dama xiif coono ba ma jàpp liggéey bi. Ah. Hmm. Hmm. neex na de. neexati na comme d'habitude. tey nag bébé damay sant yàlla quoi franchement ndax euh, damay sant gàllaay bu baax a baax ndax moo tax ma xam la waaye rëccuwuma benn yoon li tax ma xam la. ndax wax dëgg neex yàlla soxma nga nit ku baax nga xanaa di la ñaanal yàlla may la gudd fan rek may la njaboot ku barkeel sama dame mm. man li ma war rek laay def mm. sama jëkkër nga mm. te jëkkëru njëkkante nga <laughs> yow sa bànneex dama ko war dab ndax yow rek yaa ma mën a dugal aljana dëgg la ñaanal naa la na sa xel dal ñëw na <laughs> lekkal mu rees ak jàmm suma tukloor aale racin <laughs> ñu añ boobu mais ñaan bi nag benn laa bëgg bu gaaw hmm. mhm. bëgg ay jumeau loolu moom su ma paree ci suppu kànja bu rëy bii mhm. su la koy ñaanal muy dal <laughs> ay ci kon lekkal hmm. Mhm. Ah, seu Marco. Marapus. nam naa ah sëñ merci beaucoup gis naa la. koy xaar wala bonheur jox de. da ngay Ben yii Ablaye dafa baax de. responsable. xam hm? ak jigéen. macha allah zero ah xorom sax nanguwutul ma jënd ko ci kër gi. Hmm? lépp moom mu koy defal macha allah. déedéet xanaa. ba ci sama salaire su ma fayee ko noonu laa koy bloqué waatee ci compte bi. moo tax loo ci gis. Hmm? dajale naa ba jënd sama terrain tabax rek moo ma desee. ah kontaan naa kon daal léegi daal biraan fii amatu fi place. kuy biraan hmm? biraan ci pot. engagé nga de jànk. waaw lii lan la. dama lay neexal lu ma defati. ci def nga deug ci sa waji ak a xam nga te bu deug deug hmm fam mi ngi ma may mhm. beug na ci lol cëm beug na ma yeeram mhm. na ma mhm. sutural na ma oh. te mu ngi may jappale quel sentiment buma pané mu dépanne ma isaan bu de deug rek nga beug deug dégg uh-huh. jigéen dëgg mooy femme maa mën mbay ngi ne femme limi def lepp mako dum ko ci diko di jox temps bi par tactique xamul mu ko xamal. Hmm. bo demé ci saway ya? dama bëgg ngay sol zipp di togg supp di sukk di sëpp di jox muy lek ba paré di ko may pëndi. nga ay bandi. may pëndi. ñoy pëndi. mademoiselle Mbaye waxal monsieur Sagna mo exi

Monsieur Sanya, je vais vous dire la vérité. Cancer nga cancer du côlon le. Des yang terminale

li la desee soo weesuwee semaine dina ma jaaxal je suis vraiment désolé mais fu mu ne nii kenn mënatul la faj grand amour juste après la page publicitaire. man aawo laa sama jëkkër xeesa ko gën sama peau dafa sensible pour Noël ko jox ko éclat ak souplesse Love Skin lay utiliser man ñaarel la. sama jëkkër ñëw la ko gën a tax may jëfëndiko Love Skin

Tackle, ko Skin ultra hydratant am Skin huile d'argan am Skin huile de carotte ak Love Skin huile de coco Bouma Sango va parler. Lovskin, Love Skin ana jigéen ñi bëgg a bëggal seen góor daw si leen gaaw ma wax leen fii la feem yam établissement Cissé jidde cuuraay bu marché zinc pikin tali bu mag janoo ak garage su clando mi ngi toj waaw waaw ma ngay toj ma ngay toj yii bagaas yu baax ëpp naa jëm ci Saint-Valentin bi yii bagage oh xet gi ci boppam ca tali ba la lay engagé waaw ak Saint-Valentin bi yii affaire yu baax ay yoo xam ne danañ loolu lu mu doon sax xaw ma de jigéen ñi lu ñuy doyee loolu ah mbokk yi ak de massage yu baax établissement c'est guide de Boyel, chaque jour na briquet bi dang koy rek mu nga nek mukaram xet gu neex bagage goudi nak indi nañ ko pour la ñafal ay yu ay nuisette yu amul robe cristal yu bax yi rose ah ay oreille day tak manam ay yo lumière ballon de mariage ak d'anniversaire ay lampe led yo ah lolou lampe led rek est-ce que rek la ay pañe dox dajé ku ñu may ñëkke rek ñëwal set siñu am nañu ay affaires yu bax yo xamné pour yow la waaw ay plateau décoratif yu yang. ay siwo cuuraay bép matériel bo xamné day def pédicure manicure nga jël sa jëkkër rek jël tanki yi daal di xooj daal di defar ba nopi nak di xéñ say salañ salañ ah lolu ëpp na établissement Cissé de Cuuraay dañuy def livraison à domicile pour Saint-Valentin bi kessé nak ben adresse rek mo jara a jël établissement Cissé Jidda Cuuraay marché Zang face garage Clando 78 630 11 71 78 630 11 71 le 76 847 15 15 le 33 854 35 60 Narawan Taidi. tayji tey ci centre commercial et la centre commercial bo xam ñing ko tabax ci 1500 mètres carrés ex cinéma Alkarim nek pikintali Tali bu de marché talale, Moudinak ko nak immeuble quatre étages rez-de-chaussée ak deuxième étage nek centre commercial boumak mak bo xamni ni ay cantine yo xamni lepp lo xamni jaay ci bi da nga ko fay centre commercial boo troisième étage amna na salle polyvalente bu doy salle poly polyvalente bo xamni ni képp ko xamni ni dëkk nga Pikine dang ci fier wa Pikine ne suñu salle bi dinañ ko téye dinañ ko entretenir soxlaatul ñuy dem séminaire fenn soxlaatul ñuy dem soirée dansante fenn soxlaatul ñuy def réception feneen lépp lu ñuy defati dañuy ñëw foofu ca complexe Batora complexe Batora dafa am nag salle bu doy waar boo xam ni boo ko gisee sa xol day sedd bu ñu ko aménagé mën na jël plus de 900 personnes ba noppi ñu jël disposition yëpp am ascenseur ba noppi am ay évacuation de sécurité une salle entièrement climatisée à l'image des grandes salles y nekk ci hôtel yu mak yi nek ci aduna bi yépp yeen wa Pikine yéen a ko moom yéen waa Géejawaay yéen a ko moom yéen waa Caaroy a ko moom yéen waa Yëmbal yéen ko moom yéen ko ba 4 quatrième étage nara am salle de sport bu doy waar kuy gérer bii joyau bijou ñu ne Kanen Hall wolen ci 77 522 71 89 wala 77 841 98 98 le 33 851 1747. complexe Batora salle de spectacle Boumakbi, nek bii fi ex cinéma Al Karim. Rolko, Neko États-Unis Neko France Neko Belgique Neko Chine Yangi Sénégal Bir Pikin, Koune ne fier. chef La ilaha illallah. Ndax jaakum min. Wul yaay boy. La ilaha bui, bui, Xanaa da nga dajé gënë li la la. lu xam ba jamm la. La ilaha illallah. Hmm? ma lu xew? Kan, Penda. Yag na ko wax. Motax dama ne mukk du ngeen sey yeen ñaar. Dafa ay Waaw lu xew lu ko dal. Jëkkër ji gaay. Oh. إنا لله وإنا إليه راجعون شاب باب باب باب باب loolu kañ la. léegi lan ma ko wax léegi. dafa soog a de. dafa ay gaaf. dafa ay gaaf waxoon naa ko waxoon naa ko dafa ay gaaf. jaajëf na. laa ilaaha illallah. laa ilaaha illallah. yàlla na ko yàlla. laa ilaaha illallah. ana Fane. ah. bii si biir xaaral ma. xaaral ma wax ko comme ça annoncé ko affaire bi. جدا في الكرة قد قرد والجاي والنبدا لا اله الا الله شريت انه قلبي ولا يتفهم شريت انه قلبي ولا يقدر ياكل yàlla suñu borom moom mooy dogal ñu daal di koy nangu rek yàlla dogal na ni jëkkëru benn bi femme 阀门，阀门，阀门，哎，阀门，阀门，我回来了，有哎，阀门，中午。 monsieur Sagnane nañ ko ñaanal yàlla sunu borom xare ko àjjana. du loolu. kon lan la. faama wuy ji na boromam. kañ la ko wuy ji. ma ne yaa ngi commencé naax kat waxuma la faama mu mu waxuma la faama wuy ji borom monsieur Sagnane laa la wax wuy ji na borom nga naa ma faama. faama laa fekk ci néeg bi mu sedd guy xaw ma moor sibir la man xaw ma lan la xaw ma ko. lan wuy ji na. la ilaha illallah. allahu akbar allahu akbar. la ilaha illallah. laa ilaha illallah allahu akbar ma ni luy jot jot na nag gannaaw dee luy jot jot na gannaaw dee lii naan yur bu ñëwee ba ci bopp faxas ko jot na nga sa digganteeg pend mi ku yàbbu jukki bu baax ndax ku ci jugul ku ne yaa ci des yaa ci des ah? yaa yaa ciy damaa bëggoon nga baal ma ndax sa diggante ak biraan ku ci dugg yaa ciy des te diggante ak biraan day képp ku ci dugg ku ne rek giñ naa ne yaa ciy des te doom bëggumaa dugg kaso te bëggumaa dee ndax damaa njaboot gis nga diggante biraan mi ak minaa kenn doxu ko sama jëm ji kat kott rek dong ko dox ba mu tak ko ba nga tassé ba ñew ci magasin ba mboolem lo fa dégg ci wax kenn waxu ko man mu tok kër yi kep mako wax lépp samay kàddu la te doom bëgguma dugg te ñemewuma dé ndax dama njaboot ma bëggoon nag nga dimbali ma ngir jëmmi alaaji daa rajo sama sang ba ci ma booy nga jikk mbooleem la ma amoon ci sëñ bët fomm naa ko bis nekk tey yaay sama ma li daay wër Birame is nga xamal ne sa diggante ak pend jot na. ah suñu xabaan ba duma fa dellu nijaay ji xeebaan ma. Birame mbëggeel alalu yàlla la kenn du ko fooye ku ko nar a fooye yàlla dal sa kaw. sëy ñu ngi koy takkee ca aras sa diggante ak pend mi ngi soo ko jot. ana ñu doxoon ci seen diggante.

Birane ça va. waaw ah, moom. yaa ngi si jàmm. yaa ngi si sant baax. yaa ngi si jàmm. ça va bien. tàngaay bi. ça va mi tàng rek. fan yii nag guddi gi day xaw a sedd de. Birane xam yow sa xàcc du jeex kañ ngay wax sa soxla. bés ma jël xaalis def ci enveloppe bii jox la pour nga jënd yëre tabaski nga delloo ma ko lekk ma ko. ay fo rek. maa la ko jàppale ci tefes bi dama bëgg nga jënd si yére tefes bi. Birane man lu la seetaan nga liggéey ambulant ba sonn dajale som bu toll nii ma koy yàkkati ci benn fan sama ngoon mooy man la jox du yàkkati. xam nga lan laa lay conseiller comme instant bi si ambulant nga toll nga daaj taabu bu baax toog si liggéey ndax naaj bi dafa metti léegi nag loo si jublu. xeeb naa ko trop mooy sa bu njëkk. Birane. Hmm. xam nga ne lu jot yomb. Hmm, hmm. te sama digganteeg yow nag jot na.